jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëw lakk Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni kon ñu ngi leen di ziare di nokkeel ñëpp ci bis bi bés bi nag li ko sabab maanaam mooy comme ni ñu ko waxee dañuy dénk ndaw ñi pour ñu tàggat leen ci siraatal mustaqim ci ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maanaam base bi nag comme ni ñu ko waxee euh, date bi ñu ko créé 2006 la. bañ jógee gannaaw raay lañ sëñ bi yebal fi ñu ñëw pour ñu jubanti ndaw ñi léegi nag booba ba tey wax dëgg yàlla nit ñaa ngi ñëw di indi seen doom di am ci yaakaar ci sëriñ bi ñun comme niñ ko waxee rek ñu ngi fi waaye daanaka lépp sëriñ bi la ñun duñ ci lenn waaye am nañ ci am nañ ci ndam loo xam ni maanaam liñ ci ñi fi jot a ñëw ñëpp ñu ci ëpp wax dëgg yàlla ku doon jël leneen lu dul noonu muy wàllu comme niñ koy waxee jëf jëfandikoo sàngara wala ngay jëfandikoo tux daañ fexe ba looloo dañ ci yow loolu nag du ñun Serigne Touba la parce que fii Daaru Salaam na tudd ci biir Daaru Moxti Cheikh Modou Kara moo ko tuddee léegi nañu fi yar ndaw ñi di de dellosi ci sa sago ba nga mën a jariñ sa bopp parce que nit ki lu mu def te jariñul boppam amul njëriñ parce que li ñuy wax drogue ak leneen da yàq nit léegi nag loolu dañuy fexe wax li ci Serigne Touba wax rek delloosi leen ba xanee ëllëg daañu mën a jariñ seen bopp jariñ seen waajur pour mën a dellu ci société bi delluwaat parce que sëñ bi day fekk foo ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faal ko ngir boromam parce que loolu mooy liggéey Serigne Touba mu dénk Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu di ko jëfe ñun ñii xane ñun ay soldaar lañu mu jox ñu digal ñu kii taxaw di ko. waaw maanaam dara jafewu ci parce que boo ne yomb na wala day kii da ñun ay ndongo lañu dañuy jëfe ndigal rek comme niñ sëñ bi wax noonu la ñuy doxee ba tax na niru loolu jafe waaye jafewul parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk. parce que mën naa ko bañ naa ma wax ba ni ñun ak ñoom ñooy fanaanandoo ñooy yeewandoo duñ leen bàyyi benn yoon ku ji jaar foo xam ne waroo fa jaar dañ lay war rappeler la à l'ordre parce soldaaru Zaire ñëw fii bàyyi lële sëñ bi jox ñu liggéey bi ñu mën leen a tàggat ci foofu lañ leen di tàggat porte vert bi maanaam dañ comme ku nekk dafay am sa sa doom wala sa jarbaat wala sa lu mën doon dañuy bëgg ñoom ñu xam ne ñun li ñuy def ñun ak ñoom la parce que ñun lu ñu mënti jubanteet ñun ak ñoom la ñoo ko digaale parce que ñun bu ñu defee lii ñoom dañ ñëw seet seen doom pour wax ak ñoom pour xam ne ñun li ñuy def nëbbuñu ci dara dara Serigne Touba kese la may joxe mooy ku ci amat sa doom boo koy indee fii ba mu pare nga fexe noo ko wutalee fu mu jàpp ba mën a ba ndax ma day jëriñ boobu parce que nit ki boo koy indee fii defar ko ba mu baax nga seetaan ko mu delluwaat fa mu nekkoon day delluwaat ci la mu daan def moo tax boo fi jógee ba sa doom kii da ñëw wutal ko lu mu jàpp pour ëllëg loolu daal la ñu am lu ñu ci fii moom daan fii moom 15 ans jëm kaw mag sax dañ ko fi jël pour jubbante ko waaw. dañ fi jël mag bu ne parce que danaa mag ñoo xam daa jël karool fii pour ngeen xam parce que sëriñ ku dëng moom dëng na rek dañ koy fexe jubanti delleesi ko rek mag mu dëngit dañ koy jubanti moom delluwaat jàngal la aw ba nga wàcc kii ñuy waxal ni mooy ustaas bi ja boo xamul feru iji ñu feral la nga jàngal sa bopp ba xam say français julee sa ak ni ngay jàng xasida wala nga mën a wàccee kaamil loolu mooy suñ mission waaw léegi fii comme fii amna man nga fay def 3 mois ba 6 mois Ce kilifa moy ñëw waye boo fa def 3 mois ba 6 mois dañ lay bàyyiwaat nga delu sa kër pour mën ñu may la sens. kan nga ki boko ko yoree da koy may chance yolomal ko xol ba xam li nga def ci mom deug la dem na wala jallul bu jallé nak nga bàyyi ko bu jallul nak nga dellu siwaat ko ñu waxat ak moom mu gën a teguwaat. voilà moi je me je me nomme Babacar Dioum je suis le coordonnateur de de toutes les activités de ce centre. Ce centre il a été créé en 2006 par par notre guide chez Ahmed Kramba Nourini, à la suite du retour de, euh, la mission de euh, d'évacuation des, eaux, de, la localité de Guinaouraï. Euh, on, a, passé là-bas 4 mois avant de finir ce travail. Bon, après la fin de cette mission, on est venu, chercher on aussi pour continuer le même travail. Parce que ce travail, a, a, été commencé là-bas, à, Gnaouraï. Là-bas aussi, en même temps qu'on évacue les eaux, on recueille aussi des, personnes en difficulté qui sont vraiment marginalisées, soit, soit c'est des, des rebelles ou bien des, des, des, des, fumeurs de chanvre, ou, ou, des drogués, aussi ceux qui utilisent l'alcool. Donc, on, est revenu ici en 2006 pour ouvrir ses euh, euh, euh, euh, qui sous le de, Don de notre guide Cheikh Et, et, c'est cela, c'est pour matérialiser les voeux de son, de son défunt père. C'est dans son de qui disait toujours que si, si, si Dieu était garage, je serais son mécanicien. Euh, euh, parce que je me suis investi dans cette mission pour, pour recueillir tous les gens en difficulté et les ramener dans le, dans le droit chemin. Voilà, voilà, en synthèse l'historique et, vraiment les, les motivations qui, qui ont mené à, à, créer ce centre. Bon, les, les, les conditions, il y a des conditions financières. Bon, bon d'abord, il faut être dans, dans les cas qu'on vient de, de, de, de, citer. Il faut être un on un drogué, en tout cas un marginal. bon voilà, il faut être dans ces cas. Maintenant, après, ce cas, il euh, y, a les conditions financières et matérielles qui vous sont soumises. Bon, bon, après, euh, euh, après votre aval, on recueille la personne en difficulté pour l'internet ici. Maintenant, maintenant, son séjour, ça passe comme si on a un, programme d'enrôlement hein, de, ces gens-là pour, pour, les amener à, à, à, les réinsérer dans la société. Voilà, c'est en gros modo euh, euh, les, conditions euh, de, euh, pour lesquelles on, on, peut recueillir les gens ici. Bon, la durée de séjour, minimale, c'est de trois mois. Mais, mais comme je, je viens de le dire tantôt, c'est cas par cas. Parce qu'il il y a des gens dans leur cas nécessite un prolongement de séjour. Donc, c'est le processus qui est là, qui, qui, qui, qui doit atteindre son terme. Voilà, c'est justement cela. Mais, mais, mais, mais, la c'est trois mois. Bon, euh, la, la, rencontre se passe comme si, euh, euh, dès qu'ils sont intéressés, ici, bon, dès euh, qu'ils sont intéressés, on évite les parents à venir de temps en temps venir les voir pour eux-mêmes s'enquérir de, l'évolution de, de, de, situation. bon, bon, ce faisant, on a consacré deux jours de, visite, samedi et dimanche. deux jours de visite pour samedi et dimanche pour, que, pour que les parents soient, soient, associés, soient associés à, la, à, la prise en charge. Non, mais mon dernier mot, c'est j'appelle tous les parents, j'invite tous les parents à venir à, nous rejoindre dans notre mission de, de, de, les gens à sortir de, situations difficiles. et pour ce faire, Bon, on les invite à, à, à venir vers nous et, et, et, et s'en tenir de, de, de, de problèmes. Euh, maa ngi tudd Abdou Sène man may jàngal xele yi fii ci base euh, xam ngeen ne base di Daaru Salaam comme ni ko ñu fi jaar waxee jarul ñu ciy jaaraat muy historique bi cosaan léegi yëpp mais ci cadre jàngale bi xam ngeen ne fu ay nit di daje rawate na ñu ñuy jubbanti. yaakaar na euh, dara du ko du fa gën a gën a yella lu dul jàngale nit ñi jàngal nit ñi xamal leen rawatina seen diine ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy jullee ni ñuy wooree ndax ab jullit yaakaar nañ fi ñu dajee ñëpp ay jullit lañu moo taxit dafay ja ci yell ñu jàngal leen alxuraanul karim ku nga xamante ne jotul woon jàng moo xam as bu mu mën di toll su duggee base balaa génn incha allah dinañu def ci moom dañuy fexe ba mu mën a demal boppam bu génnee ci wàllu lecture alxuraan mën a jàng alxuraan bu ko neexee mën a xam itam nu muy jullee ak ni muy jëflante ci wallu diinam euh, yemuñu ci maanaam ñi nga xam ne jotoon nañu jàng am as lëf ci jàng ci xam-xam bu ñu ñëwee dañuy fexe ba jàngal leen téere yi nga xam ne dañuy jàngale ci wàllum maanaam euh, euh, fiq lu mel ni fiq mooy maanaam droit islamique ni nga xam ne noonu la ñuy toppee yàlla loolu yëpp mu ngi fi. ni itam téere yi nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul comme mooy suñu wasila téere yi nga xam ne def ko def ko bind ngir ñu koy jàngal xale yi lu mel ni tasawudu sixaar lu mel ni nax jul xadaayal xaaj yi nga xam dafay jàngale ci wàllu éducation leen ñuy jàngale ci wàllum euh, jaamu yàlla loolu lépp dañ ko fi jàngale yemuñu ca dañuy jàngale fii ay xasida xale yi boo gisee boo déggee son boobu ngay dégg si suuf xale yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy jàng ñoom ñooy daaj ñooy kuréel ñooy jëf lépp fii nag as bu ne bu fi ñëwee dinañu mën a dinañ ko mën a jàngal ci na mu waree te du am benn jafe-jafe ci wàllu euh, njàngam loolu daal moom moo fi nekk ci wàllum njàng ak euh, njàngale euh, xam naa du ñu guddal.